sëriñ bi longu lay teg ñaan faqir dafay nangu dagaan nangu lu lépp luñ la ñaan ndax yàlla naatel xerni bi sëriñ bi longu deeti ñaan faqir dafay nangu dagaan nangu lu lépp luñ la ñaan ndax yàlla naatel bi nangu dagaan nag ci Mustapha mi nekk Marwata ak Safa ak ak am di Mustapha nu yàlla jébbal xer ni bi ak ak ay rakam ak ak seen baay ñu am ak ak seexi bambaam sëriñ bi jaabil xer ni bi mbàkke da ngay borom mi boot te sa tawat gi loot ñu def ma ab antal pareet may la poto ak xer ni bi amana di la waa waaye murid yi ñoo ma waana tawatal woo saw la meñ xew xarnu bi ma wax bana tareet ngir a ma def antal pareet yaa ba bi xam-xam ne yéreet ci sama xel ci xarnu bi bul ma tangam lu ci ñaan ngir lii ma bon tey ku ka ñaan mur ci yépp la ñaan ngir ba dekkal xarnu jooy tarantal la jooy boonu fabul leenu ne wooy ku nu yafal ban dëkkuy mu delu naatal xarnu bi أحمد الأمين بن خديم خير الأنام أحمد العلي الكريم يقول ها أحمد الأمين بن خديم خير الأنام أحمد الهادي الكريم أمدا لربي الرحمن من جاء بالإسلام والإيمان ثم صلاته على الأدنان من جاد بالإيمان والإحسان من فضله في المرسلين ثبت وبكتاب العزيز قد أتى وآله أهل تقى وشعبه وكل من قد جاء مؤمنا به هذا وإن اليوم صوت وسلي بشوى القرآن وهو منشلي يا الرحمن الرحيم جذب القلوب لعل أم الغيوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للحق المبين كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع نعمه أحمد ربي العظيم حمدا كثيرا لا يريم مسليا على الكريم خاد الورى لمنعمي أذكر شهر المجيد شكرا يلاقي المزيد مسلما على الوحيد بقلقلي وكلمي شكرته إذ غشني بخدمة المعيشني شاخدمة في العلني له وفاك واللمي له ختاب داهيا بما يهيب ماليا وغاد لي أخرديا شادا لدهر الكريم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذكر زهينا بالمنتقى المترم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذكر سهينا بالمنتقى المهترب بسم الله الرحمن الرحيم barke maam Cheikh Rafal ñu ngi ci waañ yi fas yéene waajal bésub sëñ Sidi Maxtaar bi tey ndax liggéey bi yëpp liggéey sañ Sidi Maxtaar la daayira Centre Abrar soxna Waalo nekk présidente bi dañoo sas at mu jot ñu def cantuk sëñ Baara cant gi ñuy def nag guy mbind gépp la mooy daayira yi lëkkalee sëti sëriñ Baara yi mbooloo mi lëkkale sëti sëriñ Baara yi mooy centre Abraar kon liggéey bi ci lañ nekk ñi ngi ci waañu di waajal bernde yi ñuy sant na kenn koo xam ne dañ ko tuddale woon bés bi muy sëñ bas Abdou Khadre ñëw na na mu toll jox nañ ko wàccu waayam ba mat sëkk Mbàkke ñëw na ak na mu toll ak na mu xamee ak na mu daan defee rek defee na ko nag waaye lépp xam na ne ci liggéeyul maam ju tedd ca la ñu ngi ci liggéey bi nag di waajal añ yi bu ñu paree bu tisbaaree bu ñu jullee sa pare dem ca baas ba fa yéene waxtaane lépp ci Serigne Bara ak Serigne rek la waaw tàmbale ci Serigne Touba rek yem ci Serigne Touba barke maam Cheikh Rafa. jërëjëf yàlla jërëjëf yonent bi jërëjëf Serigne Touba sëñ Sidi Mokhtar yàlla na fi yàgg te wér ñu yàgg ci gannaaw mu ne suñu kanam ñu jëfe ay ndigalam di moytu ay teram barke sëñ Touba. nga sant ñi ma àndal rek man daal jigéen ñi laay sant ndax jigéen ñi daal moom daanaka ñoom la góor ñi dalem xel ndax luñ leen laaj ñu boole kook seenu ñaq seenu coona te liñ leen di laaj sax duñ laaj fuñ koy jëmee moom buñ xëjee ma ne sëñ Touba rek jeex na kon maa ngi leen di sant di ñaanal yàlla yonent bi ak sëriñ Touba fañ bëgg a yegg yàlla nañ fa yegg ñu wér wérle seenu njaboot wér wérle kenn ku ci ne dund ba sa njaboot yor la ba lii ñuy def ñu di ko ñaan ba di ko def ba suñuy sët di ko def ci barke bi yàlla yonent bi ak sëriñ Touba barkeb sëñ Baara barkeb sëñ Sidi Mokhtar yàlla na fi yàgg te wér xale yi ci waañ it ñu ngi leen di sant ndax xamuñu naaj na xamuñu guddi na daal man daal sant yàlla ak yonent bi ak laa def ndax sama toogaay bi rek laay toog man defuma dara lépp ñoo ma buñ leen laajee ñu joxe te ñooy sonn ñooy ñaq te kenn du ne eh kenn du ne sonn na liggéey sëñ Tuubaa rek ka leen yow leneen loo leen woon ak liggéey sëñ duñ ko def liggéey sëñ Tuubaa rek sëñ Tuubaa daal ñu tàmbalee fi lañ jëm yàlla nañu sëñ Tuubaa jàppale barke sëñ Sidi Mokhtar yàlla nañu jàppale barke sëñ Tuubaa defal nu ak wér gu koy déwén di ko teewee déwén di ko teewee di ko teewee ba suñuy sët di ko defaat ba suñuy sëtaat di ko def barke sëñ Touba. bismillahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke Serigne Touba barke Cheikh Sidil Muxtaar Mbacke. Ah, jërëjëf mbokki jullit yi mbokki taalib yi nga xam ne ngi seetaan ñoo ngi fii ci nga xam ne si ne mooy wàllu waañ wi jëm ci li nga xam ne mooy jëm wàllu bernde yi fii ñu nekk nag mooy waañ wi nga xam ne si ne moom la ñu toggee ñu fekk fi soxna yi ne ko soxna Waalo waxee léegi ak soxna Daba Kanté mi nga xam ne moo yëre wàllu jigéen ñeeg yooyu foofu lañ leen fekk gis ngeen liggéey bi ni mu demee ñii ñu ngi toll si wàllu sóor ñii ñu ngi toll si ay yàq lu ne ñu kenn ko nekk fa nga toll yaa ngi ca taxaw taxawaay bu mat sëkk wàllu woowu nag kiñ teg si kaw loxoom mu nekk fi muy tafaaka mi ak mu nga xam ñu àndal ak mboolem ñu jiit ak mboolem daayira yi nga xam ne ñoom la àndal wàllu organisateurs yi ñoom ñëpp kenn disut ñëpp a ngi nii teew waa ñu boo ñëwee dafa fees dell kenn disut liggéey bi ñu leen santoon ngi ci wax dëgg yàlla man mi nga xam ne si ne maay seen nag maa ngi leen sant bu baax a baax si bi ndax liñ def jëf ju réy la def ju toll nii am na solo lool mbooloo moo xam ne ay dayre dayre lañ ñu àndandoo bokk doon benn amul werante amul xuloo amul ŋaayoo amul dara kenn ku ci nekk yaa ngi ci la nga war a nekk kenn ku ci ne yaa ngi ci liggéey bi nga xam ne si ne moom lañ sant kenn ku ne am na poste bu ñu la féetaleel xam nga ko yaa ngi ko féete ak sa mbooloo ñoo xam ne moom nga àndal liggéey boobu nag yàlla lañ ciy sant ak yonent bi ak Serigne Touba waaye di sant Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke bu baax a baax ba mu boolee bañ nekk benn ñun ñi ñëpp doon lii nga xam ne si ne waa guy mbind gépp tey boo fi ñëwoon tey ñoo fi nekk daayira yi nga fi séen kenn ku ci nekk ci daayira la jóge ci biir kër la jóge kër googe ci kër sëñ Baara la mu nekk benn kër ñoom ñëpp ñu soo ci kër sëñ Sidi Motaar kon loolu ñu ngi sant bu baax te ñaan yàlla mu yàggal ko fi ba taxawaay bii mu taxaw mu gën a gën a gën a yàgg te gën a sax te lépp lu ñu ceefloo ñun ñi tamit man ko am kàttan gi may ñu wërsëg nag woo xam ne si ne lu mu la ñu man koo liggéey man koo def si barke Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gisul yaay te noongu raam ku ñàkk yaay day namp maam buural te boornu ngala daam rogg ni mboolem karnu ji sabal sa doomi yëpp boor ñoomit ñu boor seenu njaboot ku mun ka boon nga jox ka mboon ndax yàlla naatal xarnu bi dafa murit yi suturaal mottali jàkka ji ñu naal foo toll dolli seen alaal ndax yàlla naatal xarnu bi ndax yàlla di Mustafa dara jumaayi Mustafa bam tale marwata saba ndax yàlla naatal xarnu bi mbaale murit yàppa ngi jooy ngir lu ñu bay mu daldi gooy ba seeni addiyaa ngi booy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 Euh, def li nga xam te moom lañ fi baaxoo def ci barab bi ñu ko baaxoo defee muy sant Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ibnu Khadim Moustapha niñ ko waxee woon ci avant première yi ngeen daan dégg ak yi ngeen daan seetaan yëpp ndax li ñuy def gannaaw biñ ci amee ndigalal sëriñ bi dañ cee amit ndigal mboolem njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gépp ak mboolem njaboot yi nga xam ñoom ñoo euh, ñooy njabootu taalibe yi yëpp ak ñi nga xamante ni ñooy aju ci kër gi moo xam ñu di Cheikh wala ñu aju ci ay seex ñoom ñëpp ñu àndoo di def bis bi tey kenn ku nekk xam na ne euh, sëriñ Baara yàlla da koo defaloon loo xamante ne nii euh, yombutoon ci njaboot gi nga ñoom la doon jamonoon teel. Euh, dëppoo gi mu déggoo gi mu déggoon ak sunu borom subhaanahu wa taala ak euh, déggoo gi mu déggoon ak ki nga xam te ni moo di Serigne Touba Xaadimu Rasuul euh, yàlla da ko cee fayee loolu ci njabootam ba njaboot gépp yàlla dogal ñu déggoo doon benn ni mu amee ci ni nga xam te ñooy sang si noonu la feeñ ci taalibe bi te loolu sëriñ Bara dafa yàgg di wax di ñaan yàlla yaa jaama ijma sam lii wa kasirin nay la wa baarik yow yàlla yow miy boole na nga ma booleel sama njaboot te na nga leen defal xéwal te na nga leen defal barke loolu it bu mu mel ne dafa dëppoo wala mu feeñ boog ci jamono yi ki nga xam te moo di sang bu tedd bi di Cheikh Sidi El Mokhtar Mbacké nga xamante nii moom li ko ñor rek mooy boole jullit yëpp euh, ni nga xamante noonu gis mu koy liggéey ci réew mi yëpp ak ci àddina bi yëpp fépp foo xamante ni taal bi saa koy tàkk nga fay loxoom di fa soññee di fa ngir baatub lislaam jëm ci kaw ngir lislaam taxaw te dootul daanu ba mukk noonu it noonu la lay liggéey ci péncum boppam mi ba nga xamante ni daana ñëw fa faral di wax ci moom ci gémmiñu boppam ne su ngeen ma doon indil ni milliard taandu leen ngeen ànd te bañ maa jox dara moom ma ko gënal ndax man seen ànd rek mooy li ma ñor te loolu it xam na ne aljamaatu rahmatun euh, ànd suñu borom ci lay tàbbi atum ren jii nag ñi def ko at moo xam te dañ koo def bëgg ci feeñalate lenn ci mbir yi Cheikh Maloune Bara Mbacké ndax Cheikh Maloune Bara Mbacké dafa doon ko xam ne ko amul yërmande la ci jaami yàlla yi euh, Euh, loolu yaakaar naa ne buñ demee ba ca baas ba euh, dana gën a leer borom ba xam-xam yi ña nga fa toog di ñu xaar euh, ku mel ne Serigne Bara moom Abdou Khadim dana ci gën a leer lu bare bare bare bëri kon te moo bi nga xam te mooy Serigne Bara ak yërmandeem ci jaam yi loolu doon na loo xam te lu loo xam naa yaakaar naa ñu bëri war nañ ko xam mooy Serigne Baye Seck moom mooy jàng mën a rëbb Ndiane doon jànkatu Cheikh Bara Mbacké Euh, wajëri mi ne bokkoon ci kàngam yi toppoon Serigne Bara yàlla dogal mooy mu yoraat kàddu fédération centre appareil bi nga xamante ni moom la ñuy jógee ni te Serigne Abdou Aziz Lo nekk ci bopp ak Soxna Wàllu Mbàkke kon dama ko jox kàddu gi su ko defee moom it mu yëkkati kàddoom euh, nga xam ne moo di fédération bi xamal ni lan mooy yëlee fédération bi ak ko tax a jóg ak ban liggéey la fas yéene xam naa ne du ma junj jooju wax euh, du ma koy waaye dama koy junj su ko defee moom ci jëmmam dana ko gën a firi gën koo leeral ba nga xamante ni ni kii dégg te xamul dana xam lan mooy saadatu abraar ak fan la ko si si sang bu tedd bi di Cheikh Sidil Mokhtar teg ak fan la ko njaboot gi teg ak fan la ko fan fan la toll ci suñuy xol kon sëriñ Baye Seck bismillah. laa hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim bismillahi rahmaani rahim ala sayyidina mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xadimi bokki julli yi bokki taalibe yi di nuyu gën jaarafeti nuyoo ci diggante taalibe ak moroomu taalibeem di feddaliwaat suñu kóllëre suñu digganteeg bokki julli yi yëpp di xam lu mat weer a ngi ci ginnaaw ngeen di seetaan ab soññee tey dégg ci seeni nopp di jàpp ci seenum xel ba bis bi yegg si tey ñetti fan ci weeru décembre ah, daje ñetti fan ci weeru gàmm mawlidu nabi ah, di sant goo xam ne ni bisub ah, la ñu doon wax xarajtu yow ma sabti saamini asar li xidmatil muxtaari fii sahri safar yow ma sabti joojee doon tukkib sëriñ bi nga xam ne nii dafa jàll rek muy bisub 18 safar bis ba dellu siwaat nu di ko waaj bis bi dellu si waat tey di di bisub Cheikh Mamadou Lamine ci sant ko war na képp ku mu doon ni ma leen ko waxee woon nag ci yëgle bi guy mbind gii barab bii nu nekk tey nit mosu fee ñimee bay nit musu fee ñemee dox sax ci xur wi jóge ci barab bii di daaru xuddoos wala daarul minan wala daaru rahmaan gee di kër suy sooy bu waaxu jëm si fii ci barab bii nu nekk tey kenn musu koo ñeme ndax dañ daan wax naa mbay deega de ko fa dem boo fa bayee da ngay dee boo duggee ci xur wa de gaynde da lay lekk segg da dàq tene da lay rëbb jaxaay da fëkk wala jinne fàdd la loolu moo amoon ci jarab ci barab bii tey kon bu ñu demee ba Seex Ahmadou Bamba Xaadim Rasul jóge Daarul Minan jóge Daaru Xuddoos jóge Daaru Rahmaan weesu fa jumaa ja nee bàyyi ko ci wetu ndijooram ñëw ci penc mii doon fi borom Touba feeñ ci jëm ji nga xam ni ni moo fi teewal Seex Mamadou Lamine ma ni mbay deega léegi dëkk dund la bu fekkee mbay dee amoon na fii si xur wii tey de dëkk dund la lay tekki ndax ñëpp a ngi daw di fi dugg tey ña ragalan ni bu ñu demee féete penku jumaa ja wala penku armeel ya rab fëkk wala jinne sadd leen ñoo ñee tey ñëpp a ngi bëtt bàyyi jumaa ji ci penku ginnaaw buñ ko siyaare bàyyi jumaa ji seen sow ginnaaw buñ ko siyaare daw jubal si kër a Mouhamadou Lamine te mooy Touba guy mbind ba muy wéet ca guy gee di fa wéeru te comme bind nga texe da doon dàq lor ja fi nekkoon kon mbooloo mi nga xam ne tey ñoo ngi jógee wet gune sow penku ganjul bawol siin saalum biir réew mi bitim réew kenn desul ñëpp di ñëw fii tey di fi fekk si koo xam ni wuutu na jëmmi Seex Ahmadu ba te mate ko sëkk wuutu mboolem ña fi wuutu woon Serigne Touba te mat seen jëmm yi ak seen teewaay mat seen jataay ah bii bis kuñ ci woo ku ne lii moo taxoon ñu di la woo bisub sant Seex Mamadou Lamine bisub seex sant Seex Mamadou Lamine war na ku sab bopp jëm kaw say tànk jëm suuf ak foo mën a bàyyi ak foo mën a dëkk ak foo mën a nekk ci àdduna sant Cheikh Mamadou Lamine war na la jamono ju lëndëm jiinu toll ak jamono yi tartar jiinu toll ak jamono ju ñagas ak jamono joo xam ne nii lii xew kenn xamu ko bu fekkonte ni bii jëmm ju mel ni Cheikh Seydi Mokhtar feeñul woon fii tey taxaw fi mat fi sëkk jëmmi Cheikh Mamadou Lamine mat fi sëkk jëmmi Seex Ahmad Bamba kon day làquwaay dana jafe wéeruwaay dana jafe rawtuwaay dana jafe waaye nag alhamdulilah rabbil alamin bi mu toogee ci barab bi ba mat ko sëkk te moom de moo nu waxoon ne nu jàpp leen ci daaira bii nga xam ne maa leen ko tëddal sa muy sahaadatu abraar tafas yéene yaatal ko tafas yéene saxal ko tafas yéene fonk ko fonkeel ga nag ñun sunu sunu yëngu bépp ci la ci saxaadul abraar lañ koy jëmale kon loolu mooy fonkeel gi ah, yaatal gi itam mooy ci rajo yi ak télé yi ak barabi jataay yi taalibe yi ak mboolem yéegukaay yeeg wàccukaay yi yëg nañu ni bisu Seex Mamadou Lamine bii ñi ngi koy yaatal ba képp koo xam ni nii nangu ngaa déglu wala ngay dégg dugg na ci sam nopp tàbbi na ci sam xel yaa ngi ko ànd ak ñun di ko jëflante nu di ko rafetlu bu baax saxal gi nag moom mooy heure bu ne bu nu jógee ci bis bi sëñ bi ñaanal nu ni nu ba déwén ak jàmm noo ngi fas yéene jàpp ko rek tàmbalee ko ci bis bu jëmale déwén bu bis ba yegsee nu dal di jël lépp lu nu am def ko ci sante ko Cheikh Mamadou Lamine ni nga xam ne ne la Cheikh Ahmad Bamba tooge woon ba ni bisu 18 safar bu ñëwatee na ngeen ma ci santale sama borom ndax lott naa ci man de xam naa sama gëm ni Cheikh Sidi Makhtar santale ko Cheikh Mamadou Lamine sàkku na ko bëgg na ko ndax wóor na ma ni lott na ci sant moom Mamadou Lamine ci jëmi boppam ci kon nag ñun ñëpp noo war a maase ànd di ko sant seex moom Mamadou Lamine mi nga xam ni bi mu toogee ba Cheikh Ahmad ba ñëw fekki ko ci ëttam bi mu fekk jataayu Cheikh Sidil Maxtaar mu dugg ci jëmmam ji moom mu yenu ko tamate ko sëkk loolu doy na ak cant doy na firndeel ni cant gi ñëpp ci war a jàpp ah li nga xam ni nii nag mooy tax bis bii di ko fàggu di ko di ko doxal di ko tàmbalee ci bu ren di ko jëmale déwén saa sunu ñaanalee li muy kii yëpp dañu ko wayafal ngir bëgg mbooloo mépp man ci def seen loxo góor gu mu mën a doon ñeenti téeméer moo la ci war jigéen ju mu mën a doon ñaari téeméer moo la ci war boo ko defee bu bis bi yegsee déwén li ñuy def ci cant gi yëpp day yemb ci suñuy loxo ñu àndandoo yendu ci kanam sëriñ bi ba takkusaan saa bu nu joxee ndigalul nu fekk ko ci biir kër gi nu àndan dem siyaar ko mu xool nu bëtam yu tedd ya tàllal loxoom yu yiw ya ñaanal na ci làmmiñam bu tedd suñu mbir yéwén loolu dinaa ci taxaw lu tuuti joxaat Cheikh Abdoul Aziz kàddu gi mu dolli ci ay ay ay ay leeral ba ci kanam. noo ngi koy wax ci nag turu sëñ Soxna Waalo Mbàkke ak sëñ Abdou Aziz Lo ñi nga xam ne ñoo ci kanam Saadu Abraar di dara jaale nag. sëriñ seex Bara Lahat mi nga xam ni mooy suñu président d'honneur te sëriñ bi moo na ko tànnalal boppam euh, teg ko ci suñ kanam di sant yàlla nag bu baax ci bis bii nga xam ne tey dañ koo jagleel sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëñ Abdul Xaadir wax dëgg yàlla moom itam euh, yelloo na ñu jagleel ko bisu seex moom Lamine te it fa mu nekk ca ca tool ya tey di dallu euh, wax na ni bisu Cheikh Mamadou Lamine bii ñu ko jagleel rëy na ci moom rëy gu toll ni mi ngi mel ni ñu fab bisu Cheikh Ahmad Bamba bi ni ñu ko ko joxe woon ci organisation màggal gi na mu toll ci moom wuutalewu ko bisu Cheikh Momadou Lamine bii ndax tey jii moo fi war na nekk taxawee ko bu wér waaye day dallu ca tool yi waaye ñin nu booleel wax dëgg yàlla taxaw nañu taxawaay boo xam ni dara mënu ko gën a rafet kon nag noo ngi sant yàlla bu baax di jële ji julli ci yonente bi alayhi salaam di wax xam ni seex mu Cheikh Moudou Bara Mbacké moom Cheikh Abdou Khadim moo war a def jataay bi te it waxtu ne bu nu dajee dinañu wax loo xam ni sunu xel dina dalaat bu baax ci Cheikh Mamadou Lamine sunu xol sedd bu baax nu gën am sunu ngëm-ngëm ci sunu sëriñ di ci woo mbooloo mi yëpp ngir nu ànd cant gi di ko waajal jëmale déwén ci kàttanu yàlla comme sëñ Abdou Aziz bisimilah. moom de daanaka li nga wax rek mooy wax ji. Euh, lëggee sëriñ Tuubaa lëggee sëñ Baara moo mooñ ci dugal ak bëgg sëñ Baara xëy na nag sëriñ bi moo ñuy bil bunt ndax euh, lu bokk jëmukaay ba na ñooy bokk yoon te yoon wi sëriñ bi jaar mooy yoon wi ñu bëggoon a jaaru mu jiite ñu topp ci gannaawam rek kon sant nañ yàlla bu baax a baax bi nga yàlla xam ne yàlla nañu sëñ Bara xéwal nañu ko toll ne Cheikh Sidi mu jiitu ñu ba pare waat jiite waat ñu ci cant gii ñu nekk nii kon ñoom ñoo ngi koy bu baax mu yàgg fa loolu te di ñaanal seen Cheikh Bara Laat moom it ak mboolem njabootu sëriñ Bara gépp gépp na bàyyiwuñ kenn góor ak jigéen mag ak ndaw ak mboolem taal bi yëpp di ñaan ñu fekk ko ayati at bi xormati nabi Musaa sallallahu alayhi wa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa إلى الموج واليم بمد الذي خلصا حذا الفلك مرض براب الموت إلى الموج واليم بمد الذي خلصا أزال فلتك الخمام مرامي وحاجاتي لربي توجها حمد وشكر ولك نبي سكمي مرادي كونها السماء غالب بزوك يا رب مزاياك يا كل من كل خجلا على جل جلال دنيا أن مقتدا مولك مبيب أما بسرار هلالا مجيب جلانا دجنا محللا مليء ومعصوم متجمل

الخير بتعليمه للموعظة من الله رب العالمين بتسليمه للموعظة kal bunyaani muallimal juhaali wal humyaani inni tawassaltu ila rahmaani xaaliqinaa bi suwari alquraani badatu bilfaatihati almuassama wa suurati albaqarati almukarrama wa aali imraana wa binnisaa'i ajaarana allahu min alaswaa'i wala nulaaqi maa yasoo abada bi jaayi man rabbal anaami habada bi jaayi xayril xalqi wal asxaabi fi nafi laa saaluka sahaabi salli ala muhammadin fi lxaali rabbal bariyati wa fi lmaali inni tawassaltu bi sirri lmaa'ida fa ablana alhuda wa xayra faa'ida أشكر شكرا له خودي ولا أسال الدار سهودي أشكر ربي على ما خادا لنا الخديم شيخنا فانخادا فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تهسى ولا تحد ناجيت من قد نزل الأنهام yaabuli maarta ji salhaama bi xormati lheedi shafiixi lmaahi afuusu bisalaahi walfalaahi salaalay rabbuna ala dawaam waliya jaada bilmuraadi walmaraam yaa rabbana bi suurati aloraafi maa laa nuhibbu ij'alhu fi insiraafi wa najji bilquduusi wassalaami جميعنا من موجب الملام هل النبي سايب الوسيلة أدم صلاة تهب الفضيلة والي أهل الفلاح والرشاد هب لنا المراد من غير نفاد يا ربنا بسورة الأنفال كف جميع الشر عن حيالي خنا سابك إلهي في الدنيا wa fil xiyaamati man yaa rabbana bi suurati tawbati tub halayna wa suq ilaahi xaajana ilayna wa ablana bi almuraad ajmaha fil aali wal maali yaa rabbi maha siwaaka lam yamut wa laysa yuhyi anta almumiitu rabbana wal muhyi bi jaahi man siiqat lahu almahaamidu man ismuhu muhammadun wa bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا تبديلا إجا رجوع إلى قوم سعادتنا وتكفينا مجامع الخلق نيرانا رجوع إلى قوم سعادتنا وتكفينا مجامع ij arju ilaa xawmi zaadatana taldafina ma jaama il xalqi niiraana ij arju ilaa xawmi zaadatana سكنا مجام إلى خلقين العنا وعجبت وجهي لما تكرم بانا في سر ما ألزم في البر ربنا لله سكن في شعر ربي الابتدائي الذي اختار خربانا ربيعنا الذي اختار خربانا لله سكر في شعر ربيعنا الابتداء الذي اختار قربانا لله سكر في شعر ربيعنا الابتدائي الذي اختار قربانا ربنا الذي اختار قربانا قد أقبل الخير من لا شريك له في الملك والأمن إسرارا وإعلانا ما خنا دعوت بعدنا إيمان لما كرمنا في البر والبر نعم الله مولانا مني كرمنا نعم الله بارد إيمان لما كرمنا في البر والبر نعم الله مولانا أني تراني بكل أفيس اليوم توسعة حتى أخيم لدين الله أركانا اليوم أخيم لدين الله أركانا كون بكل أفيس اليوم توسعة حتى أخيم لدين الله أركانا اليوم تودعة لدين الله أركانا ربيتني فدعاب للأم يا سمدي إن خير وإسعادا وإسكانا ربيتني فدعاب للأم يا سمدي خلقنا غير ذو ربيتني بدئت آمن وترئيتنا عن يوم ترئيتني اسجد صديانا ربيتني بدئت من وترية يوم ترية يتصديانا ما كدني بعد دايق سقط لي أولا واسعا بعد ما خديقت أريانا ما كدني بعد دايق سقط لي أولا واسعا مكنتني بدا دايق تطلي ولا مقدم بعد ما قد يختور يانا ولا لا نادتك اليوم يا من أمسك هرمني والسخط لليوم إيخانا وبرانا من أن كرمني وصبني اليمين نجدك اليوم يا من أنكرني والسخط لليوم إيخانا وبرانا نجدك اليوم يا من أنكرني والسخط لليوم إيخانا إشذي قلوبنا زارا يا خدير إلى نصري غر لي من قد أساء وهذا يا قدير إلى غر لي من إشذي قلوبنا زارا يا خدير إلى نصري غر لي من قد أساء وهذا نزلي هرل يمن أنا عائشتي قلوب نزارا يا قدير إلى نزلي هرل يمن قد أسعوا أنا يا يا قدير إلهي أرل اليمن بكونك الوعيد الخارم الفرد لخان هدانا على كل راية إدمانا بكونك الوعيد الخارم الفرد ونعبتني أم ذنبي أن أرى أجبا أنت البديه الذي ما سال رحمنا أمس قلبي أن أرى أرى أجبا أنت البديه يا ستلي أنا أبلي لك أمتو بهؤلاء سم ما تردوا إنسانا توسعة بهؤلاء سم ما تردوا إنسانا أوادني بعد ما ذاق الفؤاد فزر مدان لير جنا وإنسانا أوادني بعد ما ذاق الفؤاد فسرمدني أبدني بعد ما ذاق الفؤاد فسرمدني جنا وإنسانا أبدني بعد ما ذاق الفؤاد أزل فسرمدني جنا وإنسانا